asalaamaaleykum mbooloo mi waaw euh, di nuyu ñëpp euh, di incliné wu ci vraiment mémoire victime yi nga xam ni fan yii yëpp comme ni ngeen ko gisee ñi ngi ñi woo euh, ñun association bi ba Malika ba Tivaouane pël fu koor génnee rek association bi taxaw na si ñi ngi dem jàppale le brigade nationale des sapeurs pompiers di jéem a repêcher corps yi Euh, vraiment métti na trop donc ñu ngi incliné wu di massawu famille yi euh, di gërëm aussi euh, président Ibra Ibrahima Ibrahima Niang bu club model ñoom nga xam ni suñuy partenaires yu yàgg lañu nekk fii di xeex noyade ça fait des années organisé nañ si ay conférences de presse des journées de sensibilisation mhm. partout dans le Sénégal dem nañ fi Rufisque mhm. dem nañ Bargny Euh, di remercier aussi sunu euh, yeneen euh, membre association collectif yi nga xam ni ñu ngi nekk ci xeex lab bii di Malika Surf ak association Doxandem ak la banlieue le bon ak. Paix dans le monde. Oh, dans le monde association Paix dans le monde ak kuréel yi nga xam ni bëri nañu trop nga xam ni ñoom ñi ngi nekk neuf lañu ñoo nekk ci kuréel boobu ñuy wax ànd xeex lab kon bi mbir yi ñëwee. ci ñoom ñëpp dajaloo dajale seen doole ne lii il faut que mu jóge fi euh, président Ibrahima Khalil li mu wax dafa am solo parce que euh, dafa wax ne euh, nit ku ne ci environnement bi ngay dund war nga mën a am contact ak ndox ak géej sunu mbokk lébu yi ñu ngi nii ñoom ci tefes la ñu dëkk tey àdduna bi fépp foo dem am na lébu australien am na lébu tubaab am na lébu américain mais ñoom ñëpp ay nitu ndox lañu rek boo xoolee sax ñoo xaw a ñoom ñëpp kon nit dafa euh, ndox dafa bokk ci maanaam ci ci dundinam euh, li xew fan yi nag euh, ñëpp gis nañ ni du ci plage yu Dakar yi maanaam département de Dakar li ci ëpp mi ngi xewee ci département de Rufisque ak département de Guédiawaye ak Pikine parce que ku wax mbaaw wax pikin ku wax plage yu Jokkul Kaw wax Rufisque ku wax plage u euh, Mali Malika wax plage u Géejawaay département de Géejawaay ngay wax kon euh, foofu la lab yi li xew département de Dakar nag euh, lii exemple la parce que au début des des années non en fin des des années 80 le maire Mamadou Diop moo gis ni lab vraiment dafa bëri woon trop voilà moom mu jël ay responsabilités am aménager des zones de baignade Euh, jël sécurité nécessaire bi fa war jël ay maîtres nageurs euh, <clears throat> defal leen ay formation euh, yóbbu leen ci plage moo tax tey alhamdulilah département de Dakar doo fi dégg lap yu bari dina am benn benn nag accidentellement waaye problème bi ñu dajale fii tey mooy problème mu Géejawaay mooy problème mu Rufisque mooy problème mu département de Pikine donc foofu la lap yi ëppee ñooñu nag ñun lu ñu leen di mun a wax rek mooy ne ñu fexe copier le modèle de la ville de Dakar tey bu ngeen ñëwee fi gis ngeen ni plage bi dafa am sécurité tout les dispositif et la te pourtant même littoral bi la mais fii rarement ngay dégg nit ku fi lab parce que équipe yaa ngi nii poste de secours baa ngi nii maître nageur baa ngi ne la toog voilà euh, euh, <clears throat> plage baa ngi nii drapeau yi ñu ngi fi lépp a ngi fi kon xale yi dañuy ñëw di féexlu donc tout le monde et en sécurité fi kenn tiitu fi kenn ragalu fi waaw léegi nag le problème qui se mooy. Euh, waxtaan ak négociation dafa yàgg ndax lu ëpp fukki at ak lu teg mi ngi nii ñi ngi daje ak autorités yi locale administrative comme territoriale di deñ ay réunion yu dul jeex di def ay rapport yu dul jeex di envoyé mais at bu jot ñun li ñu seetlu mooy même phénomène bi dafay dellu siwaat mu mel ni ñun li ñu doon def daaw di ko def daawaati géej ren tamit bu ñu ñëwee moom la ñuy def presse bi relayer ko une semaine deux mu jeex ñu fàtte ko année prochaine ñu ñëwaat di defaat li ñu doon defaat loolu nag la ñu ne bi yoon loolu foog mu dakk parce que ku nekk foog nga jël say responsabilité tey li xew banlieue bi fii ah responsabilité yi mun nañ ko situer te jafewut parce que mairie bi bu fekkoon ni jël na ay ménagères teg leen foofu aménager une zone de baignade tey euh, préfet génne arrêté arrêté préfectoral ne par exemple supposons ubbi naa plage bi du 31 euh, mai au 1er septembre teg fa euh, aménagé ko def fa dispositif bi war dispositif de sécurité yaakaar naa ne banlieue bi ku wàcc foofu ak waay muy Pikine <coughs> muy Mbao muy Rufisque ñoom ñëpp def ko ku wàcc ci tefes bi tey di nga ñëw fekk benn zone boo xam ni dañ ko encadré pour la baignade spécialement pour la baignade te ndaw ñi dañuy wax ne ils Euh, euh, ils sont indisciplinés et cetera mais man je ne suis pas d' je ne suis pas d' accord à 100 parce que nit ki aussi bu xamul da koy encadrer surtout ndaw ñi donc nañ leen encadrer créer des zones de baignade sécuriser ko ñu mun a sangu ndax euh, dégg naa ay spécialistes yu bëri ñi ngi wax ñu ne nañu génnee police ak gendarmerie ñu tere leen loolu def nañ ko fi gendarmerie. def na ko euh, euh, l'autorité euh, territoriale def na ko toog nañ fi ñaari at yoo xam ni dafa génne brigade montée déployer la police déployer la gendarmerie préfet Guédiawaye mu ngi may dégg yàgg nañu toog réunion ak yooyu yëpp mais bu ñu leen dissuader une semaine deux dañuy sonn ndax amuñu moyen boobu fas dafay lekk bu dee moto la dafay jël essence bu dee nit la tamit dafay sonn donc lii ñëw foofu des des milliers des dizaines de milliers de personnes nga ne da leen di dissuader pour du ñu ñëwati géej mais loolu c'est impossible loolu il faut que autorités yi xam ko donc la solution mooy nañu ibbi des zone de baignade aménager ko installer fa un dispositif de sécurité comme fii ñëpp ne ñooy parce que bu ngeen xoolee ci sunu euh, collectif bi Malika surf mi ngi fii école de surf la sunu partenaires yi la bokk lu ñu xewlee dafay ñëw taxaw te lu xew si plage bi dafay ñëw taxaw tey bu ñu ibbi woon école de surf foofu comme ni fi amee euh, club de natation Ngor am ko Mermoz am ko Anse Bernard am ko piscine olympique am ko mais bu yàggee foofu dafay dund dafay dund dafay créer de l'emploi resto yi dafay ibbi comme fii gis ngeen jigéen ñi fii li ñuy jaay dafa neex am na ñoo xam ne du ñu añ du ñu euh, lekk ci kaw dañuy ñëw ba fii pour lekk ma pourtant même plage bi la te ça crée de l'emploi nit ñaa ngi fii liggéey Malika Surf mi ngi nii toog di ma dégg voilà loolu la ñu dañu bëgg ñu aménager les plages mais ñu bañ ko euh, tere léegi nag bi si topp mooy euh, classification plage plage yi il faut ñu reclassifier leen parce que tey dañuy wax ne région de Dakar am na deux plages mais sur les 42 bu ngeen xoolee moins de 14 ñoo fi fonctionnel Euh, euh, ñoo fi am accès euh, pour le public li si des yëpp dañ ko privatiser sur deux mooy de 14 plages 12 plages ñoo fi nekk yoo xamante ni c'est autorisé pourquoi mënuñu ibbi yeneen plage ñu requalifier plage yi parce que bu ngeen xoolee décret bi autorisé bi def interdiction ak autorisation des plages mais dafa yàgg c'est en 2004 alors que 2004 askan bi màgg na géejawaay yaatu na Euh, Tivaouane Peulh yaatu na Malika yaatu na donc lii pour autorité bi la ñu xam ni vraiment euh, nañu ñëw nag pour une fois ñu ñëw toog liggéey saafara problème mu plage yi benn yoon ñu fàtte ko mu nekk suñu gannaaw bi ci topp mooy gannaaw mairie yi tey protection civile mi ngi fi te protection civile direction de la protection civile euh, monsieur Niang wax na ko kooku décret décret moo leen nommé mooy décret 64 563 te bu ngeen jàngee décret bi nga xam ni moom moo tax tey direction protection civile am dañ la wax ne décret portant sur l'organisation de la protection civile et fixant la structure de la direction de la protection civile waaw ci ay mission am nag daf ci bokk dans le cadre de l'organisation générale des secours en cas de sinistre important ou d'événement grave comme li xew fii le ministre de l'Intérieur avec l'aide des, des, des ministres intéressés organise et coordonne l'intervention des moyens des divers services publics et organismes privés susceptibles d'apporter leur concours donc ñoom tëjuñu seen bunt mun nañu woo association bu leen neex mun nañu woo kuréel bu leen neex mun nañ leen woo bépp personne ressource boo xam ne mun nañu leen dimbali si loolu pour ñu mën a saafara loolu te ci mesures yi ñu war a jël dañu wax ne des mesures mesures de de secours telles que la lutte contre l'incendie les déblaiements mais aussi le sauvetage loolu dafa bokk ci seen i rôle dafa bokk ci seen i rôle donc direction protection civile vraiment euh, war nañu génn ñu statuer si lii parce que loolu seen rôle la gannaaw mairie yi ñoom aussi ñi ngi leen di indexé voilà toujours ci protection civile kii décret bi la décret bi nommé protection civile mu ne l'article article 12 1 mu ne la direction de la protection civile a pour rôle mu ne d'étudier les moyens propres et réaliser la protection des populations contre les risques du temps de paix et les dangers du temps de guerre en temps de guerre waaw ñun nag nekk ñu ci guerre ci jàmm la ñu nekk donc lii catastrophe la parce que bu ñu ko continuer nii bu fekkee noyade collectif yi dafay continuer euh, chaque week-end ñu ne la 15 personnes réer nañu ñii ne 14 ñii ne 22 donc à la fin doo xam parce que statistique yi sax bu ngeen xoolee dafa am werante bu bëri parce que loolu yëpp c'est pas bien structuré le sauvetage n'est pas bien structuré au Sénégal loolu dama bëgg ñu ñu porter ci attention mu ne de préparer les textes nécessaires donc war nañu mun a tamit alléger texte yi ba nga xam ni tey bu catastrophe yi amee war nañu mun a réagir par des plans d'action rapides mais boobu ba tey benn plan d'action amul benn autorité bu ñëw ne la benn plan d'action mi ngi nii pour dindi fi lii est-ce que dégg ngeen ko dañuy lim rek statistiques yi xale yi nañu bàyyi géej gi partager leen les plages interdites et cetera non non non loolu mënul continuer trois d'organiser et de diriger les différents services de la protection civile à tous les échelons notamment sapeurs-pompiers yi dañ leen doon prépositionné suñu collègue la ñu nag ay liggéeykat la ñu ci plage bu mel nii ak euh, plage u Ngor ak plage u d'Or mais aussi manque de moyens moo tax tamit mënuñu dem foofu banlieue parce que faute d'aménagement kenn aménagé wu ko foofu dara mënu faa tegu le même phénomène recommence kon donc lii euh, euh, autorités yi vraiment ñi ngi leen di woo euh, ci lu mel nii dem nañu nag daje ak ñoom plusieurs fois waxtaan nañu ak ñoom def ak ñoom ñoom ay séance de travail ay atelier de travail ci zone yi ci reclassification des plage et cetera mais loolu dafay yàgg depuis loolu ba léegi ñaari at weesu na bu du loon pandémie bi daaw di ngeen dégg phénomène bi di ko dégg ren kon ñun vraiment autorités yi la ñuy ñaan yàlla ñoom ñoo ci mun dara ñu fexe un ñun suñu proposition bi ci njëkk mooy aménager des zone de baignade bu ñu waxee aménagé nag mooy nga utal ko yoon boo xam ni tey service de secours bu amee accident wala nit bu fa amee dara oto mën faa ñëw dugg wala wala service de secours yi mën faa ñëw dugg ba ci tefes bi def li ñuy def mën a delluwaat loolu mooy aménagement te loolu je pense que euh, jafewul deux comme solution mooy ñu fexe installer des postes de secours postes de secours jafewul li ñu toog ni ut la tey mirador tey li koy defar mun naa ne boo woon benn menuisier ne ko defaral ma benn mirador je pense que devis bi du dépasser deux mille deux millions cinq cent loolu c'est sûr matériel sauvetage c'est pas compliqué. Mm-hmm. un million de francs di nga am tout le matériel nécessaire boo defee demande bi en don sax mun na am ñu may la ko léegi nag luy des mooy ressources humaines bi ñun association bi ñu ngi fi tey am nañu cent deux membres yoo xam ne ñu ngi actif mun naa ne réparti entre la piscine olympique et les plages de du département de Dakar mais am na 300 autres yoo xam ni ñi ngi à l'intérieur du pays te ñooñu des structures comme la fédération sénégalaise de natation représentée par monsieur Ndiawar Diallo ñoom ñoo leen formé ak le brigade nationale des sapeurs-pompiers donc ces 300 personnes et plus ñoom ñëpp membre lañ ci association bi mais non seulement ñi ngi yor seen diplôme mais ñi ngi toog di xoolee chaque jour dañ ñuy woo Cap Skirring plage bi kenn surveillé wu ko Mbour plage bi kenn surveillé wu ko Somone plage bi kenn surveillé wu ko Ngaparou kenn surveillé wu ko Saint-Louis kenn surveillé wu ko Mboro fi taalibe yi labee ñeenti taalibe ñetti taalibe yi lab dee plage boobu gis ngeen nu mu mel léegi nit ñaa ngi fay dem kenn surveillé wu ko te alors que am na ay séance de forme de formation yu ñu fa def yoo xam ni formé nañ fa des sauveteurs ñi ngi yor seen diplôme toog di xaar pour pourquoi autorité locale yi duñ leen jël ñu yóbbu leen si plage yi ñu liggéey comme dañu ne dañuy xeex l'emploi pour les jeunes dañu bëgg utal jeunes yu liggéey donc occasion la fii pour ñu wax leen ni am na 300 jeunes yoo xam ne ñu ngi yor seen diplôme des sauveteurs aquatiques aguerris ñi ngi toog di xaar e loolu def na léegi ñaata at formation yi waaw sur sept ans ou huit ans je pense que série de formation yi mi ngi continuer kon loolu ñi ngi wax ne autorité yi bu gannaaw aménagement bi dañu installé des postes de secours teg fa ay maîtres nageurs bi ci mujj nag boobu peut-être solution à long terme la mais boobu ñun président de la république lañ koy wax di ko euh, teg ci loxo ministère de l'intérieur gis nga tey dañuy wax fédération sénégalaise de natation et de sauvetage d'accord nageurs yi ñooy dem di sauver mais fii dañuy wax natation comme sport fële ñuy wax sauvetage comme sécurité boo tuddee baatu sauvetage rek yow yaa ngi dugg ci domaine nu sécurité donc foofu ministère de l'intérieur je pense que moom moo war a wala président moom moo war a fexe nu mu détaché loolu. def une fédération de natation ba pare def une fédération de sauvetage dugal ko ci wàll sécurité dugal ko biir ministère de l'intérieur par le biais de la direction de la protection civile ñu mun a encadrer loolu encadrer des zones de baignade tey maa ngi koy wax sànq statistiques yi sax mënuloo ko am parce que c'est pas structuré tey li xewoon Île des Madeleines accident bi fi amoon pirogue bi chaviré mais les secours ont attendu combien de temps faute de moyens parce que y a pas d'unité de sauvetage au Sénégal loolu na ko nit ñi xam amul unité de sauvetage alors que nous avons 700 kilomètres de côte Dakar est une presqu'île mais depuis des années ñu ngi koy yooxu yooxu nañ ko fépp léegi nag dafa jot moo tax ñu taxawal suñu collectif bi di xeex loolu parce que avant 2000 dañu doon wax ne moins de 1000 décès par décennie léegi nag dañuy wax ne plus de 1000 morts moins d'une décennie donc entre 2010 et 2018 je pense que ñi ngi egg presque 1200 et quelques morts te depuis 2000 la commencé te chiffre bi dafay gën di yéeg ndax lii ñu gis keroog vraiment loolu euh, dalul xel kon je pense que ñetti point yooyu daal ñun moom la ñu am comme proposition bu ñuy teg sur la table Euh, loolu la ñu amoon loo xam ni dañ koy leeral ci conférence de presse bi euh, di ko teg ci loxo autorité yi di ci dolli nag ne dans l'immédiat dans l'urgence comme nu mu xewee woon daawati géej ñun dañoo bindoon benn plan d'urgence boo xam ni bu catastrophe yi amee ça ne demande pas beaucoup de moyen mais mun nañ ko def suba suba suba mun nañ ko réaliser te du demander moyens yu bëri parce que nous avons des volontaires ay volontaires ñi ngi fii tey bu ñu woote woon léegi vingt à 30 sauveteurs ñëw taxaw fii dem si banlieue bi sécuriser foofu loolu def nañ ko daaw daawati géej bi euh, noyade di amee des jeunes se sont portés volontaires fay ñu leen dara ñoom ñoo dem di yendu si plage bi durant tout le te te foofu gis ngeen nu mu mettee voilà kon euh, euh, loolu la ñu doon am lu ñuy leeral te wax dëgg yàlla jot na autorités yi déglu askan wi ndax tey euh, zone bi màgg na màgg boo xam ni euh, kenn mënatul téye askan wi loolu c'est impossible l'armée sax mënu ko kon nañu vraiment aménager des zones de baignade fexe encadrer askan wi yar leen euh, au niveau au niveau aussi des écoles def nañ ci ay programmes yoo xam ni de sensibilisation loolu ministère de l'éducation nationale sunu courrier dem na foofu du benn du ñaar parce que nu leur avons proposé des programmes de sauvetage et de secourisme intégré dans le programme scolaire même bu fekkee ni sax euh, euh, euh, en fin d'année scolaire la ñun mun nañu ñëw pour une semaine ñu waxtaan ak xale yi ñu sensibiliser leen vacances yi mi ngi ñëw yéen a ngi dem géej kon sangoo leen fii def leen nii bu leen def nii mais lenteur administrative yi moo tax loolu mënuñu ko def ndax ministère boo fa duggee dañ lay valseloo ba nga sonn léegi nag président wax na ko li koy saafara daal mooy un conseil présidentiel comme président bind na ci wax na si vraiment nañu dem ci loolu ñu saafara problème bi une bonne fois pour toutes mu jeex.